yéeg si leen ak jàmm ci Pastef Média TV les des patriotes abonnez-vous dal leen ak jàmm yéen mbokku internet yi baaxoo di topp seen bile di Pastef Média TV la chaîne des patriotes dañuy taxaw dal di lay ñaan moo xam koo mën a doon te doo ko gis Pastef Média TV chaîne des dama lay ñaan nga dal di abonné te bës ko las de notification bi ngir bépp vidéo bu ñu dugal rek nga doon ki nga xam ne yaa koy njëkk a jotu ñëwati dafati jàngat saa yu ne ngeen di ko laaj muy mbirum ngañ dem ba Touré di benn nit boo xamante ci ni kat mën nañu ne bu dee jàng def na ko lool moo xam alxuraan la mbaa arab wala sax français nekk nag ci groupe bi nga xam ne mooy groupe Pastef bu njiital Ousmane Sonko moom nag nekk benn nit boo xam ne saa yu ne rek muy génne ab xam-xamam di ko wax mu ne man kat jàpp ma ak nu mu mën a demee du tax ma teggi sama tànk fi ma ko tekk muy xeex li nga xam ne mooy di troisième mandat bu réewum Sénégal mu ne kat troisième mandat moo taal réew yu bëree bëri tudd na nag ay réew yu bëree bëree bëri waaye nag mu ne li nga xam ne nag moo di troisième mandat moom fii la ci réewum senegal mosuñoo xalaat ne war na fi mën a am te jàpp na ne moom ki la di son excellence président Macky Sall xalaatu ko benn yoon mi ngi wax ne nag li gën a wér te moo di njiitul Pastef di Ousmane Sonko moom dafay bokk ci élection yi bu bokkul mën nañu ne réew mi dina tàkk ndax ndaw ñi dañoo jug dal di wax ne Ousmane Sonko mii la ñu bëgg a fal le 25 février atum 2024 maître Ngagne Demba Touré moom sax di artu ne dafa am sax ay luwaa yu ñu ma tënk yoo xamante ci nii jaaruwul ma di ko wax waaye nag li ma bëggoon wax lépp sax mënuma ko wax moom maître Ngagne Demba ñu laaj ko ci arrestation yu métti yi ñu xewal ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci groupe bi di Pastef mu ne loola moo di jaay doole gi ñu nekkee ci réewum Sénégal waaye nañu xam ne lépp bu yàlla dogalee ñu jëlaat réewum Sénégal bëgg koo teg ci yoon nañu xam ne kat teg dañu koy teg ci yoon yoon wu wér la ñu ko bëgg a teg képp koo xam ne da nga jëloon alalu Sénégal jàpp ne man nga raw danga nga di indiwaat alal ji teg ko ci anam yu set wecci fii ci Pastef Média TV seen YouTube bi xew tey joxe ay actualité saa yu ne abonnez-vous